salaamaaleykum salaamaaleykum bi ñi nga xam ne na safoo seen chaîne bi di Saint Louis TV tey ñu ngi nii amal benn plateau bu spécial mu tudd spécial Ramadan donc ñuy amal ay invités yi nga xam ne invités yu am solo waxtaan ci yenn actualité yi waxtaan ci li nga xam tamit mooy ci côté diine aussi pour mën a béggal ñi nga xam ne ñu ni seetaan saa ya. su nekk tey nag ñu am mbégte dalal ñaar si plateau bi ki njëkk ñu naan ko El Salvador di kenn koo xam yëngu ci wàllu ndar ci wàllum actualité en plus TV ak ki nga di Cheikh Baba Ngom di jànkatu xasida nekk fii ci diwaan Ndor donc sans plus tarder dañuy daal di ki nga El Salvador gas ñoo ngi lay siyaar. Euh, di delloo bi Cheikh aussi di la si opportunité bi ñu may ñu si plateau télévision bi. ok donc euh, suñu beneen invité mi aussi tamit mi ngi tudd Cheikh Baba Ngom donc mu tamit ñu nuyu ko Cheikh ñoo ngi lay ñoo ngi lay nuyu. lay fi bu baax sëriñ Cheikh ñu ngi lay bëgg bu baax baax dëgg yàlla ci dalal bi nga nu dalal jërëjëf. ok tey tey tey Cheikh euh, bu nu bu nu bu nu bëggee commencé waxtaan bi dañ koy daal di commencé si nga am loo xam ne di nga ko jotee yëkkati bu ko defee gars yi mën a xam ni plateau bi tey euh, dañ ci ànd ak ndaanaan bi nga xam ni euh, ku kenn dul présenté nga wane sa bopp ci quelques secondes rek ñu mën a xam kan mooy Cheikh ci baat bi. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وللنازمين أيضا زاد الله شفاء وفيدا يا من يرى مدفق كل دايه فلا تفارق من شفايا ودم علي في المساء والسبا وأهل ستنا سباء وفلا بإذن ربنا وجاي مصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى dégg nga li dégg saa waay saa waay yëkkati léegi léegi de. waaw macha allah. moom la daan ubbee moom moom la ñuy ubbee waxtaan bi rek bu defee ñu ñu commencé ci jàmm ak salaam. naa ni waxtaan solo tey. ok tey gaz pour ñu gën a gagner du temps tey bu nee gaz xel yi dem ci lu bëre su nee gaz xel yi dem ci rap su nee gaz xel dem Sen TV su nee gaz xel dem ci koo xam ne mi ngi yëngu ci wàllum euh, actualité yi donc boo doon tënkal ci lu gàtt rek kan mooy gaz. Euh, bon bu ma doon mun naa la résumer. kan mooy gas si 30 secondes gas euh, bu ne gas ne Saint-Louis mais am na benn jaar-jaar bu ndaw Dakar euh, puisque sama yaay fa la bokk mais man doomu Ndar Pire la bis topp mooy euh, nekk ki nga xamante ni dafay yëngu ci li nga xamante ni moom mooy actualité jàng naa bi ma paree jàng def naa formation li nga xamante ni moom mooy infographie bi ma paree euh, dugg naa ci métier bi nga xamante ni moom mooy presse euh, di liggéey fi nga xamante ni moom mooy e nekk ci ITV bi euh, gas nekk tamit benn blogueur ci internet bi nekk benn influenceur mhm. aussi tamit nekk activist mhm. du dom Ndar pire. Mm-hmm. ok ci loolu ni ñëw léegi mooy li nga mujj wax muy blogueur boobu gis nañu temps yi actualité ñuy dugal bëri na saa su nekk yaa ngi dugal gars yi di wax gaz de gauche gaz par li par ci par là donc gaz nga taxawal ngeen taxawal laay wax benn communauté bi nga xam mooy communauté de veille et d' alerte Ndar euh, stop Covid 19 est ce que mën nga ñëw si programme boobu noonu. Euh, tey boo gisee euh, coronavirus bi ñëwoon na Ndar bi mu jugee Saint-Louis.

nous tok ben 2 à 3 semaines que Saint-Louis amatul kenn ko contaminé woon coronavirus mais nous gis que nit ñi commencé daw dugg euh, Saint-Louis puisque euh, région sénégalaise a touché na pandémie euh, sauf peut-être Saint-Louis rek amul de gauche à droite te ñu gis ni cas communautaire indi ci ay dëkk comment dirais-je euh, ci dëkk lañu ñuy jógee ñëw ci dëkk indi ko fa comme tay buñu ñu ka bi nga xamante ni mo moo am fële di euh ka communautaire bi bi mu ñëwé tay ñi ngi tay ñi ñu ñi ñu ngi tolloon si 58 j'espère que tay ñi ngi ci ay 80 et quelques cas yoo xamante ni ñoom am nañ ko ci Covid tay buñu démé Louga benn ka communautaire lañ amone bu jóge woon euh, Dakar ñëw fa mu nekkoon commerçant bu mag mu ñëw wàll fa ñu bëri ba tay Louga tollu ci 31 dont un décès kon nag ñu ne ñun tey buñ ñu toogee ñun en tant que saint lucien en tant que jeune activiste buñ ñu toogee di xoolee rek tey feebar bi ay nit danañ ko fi dugalaat puisque défiance am na ci fa la amee mooy si ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu war a teel suñu frontières yi parce que ministre bi mënul génne arrêté ne kenn ku nekk na nga toog fi nga nekk képp ku déplacé wu dem ci beneen dëkk yoon dina dal ci kaw ñun ñu toog à saint du gi chaque jour ay nit di jóge ci àll ba ñëw di dugg ci biir ndar ñu ne kat lii day dakk

je suis l'initiateur et je suis actuellement le coordinateur puisque je travaille avec Ben Ben Ben groupe bo xamante da fay lu citizen attitude fa nek Ben mouvement bo xamante da fay euh, fédérer bépp association bépp mouvement associatif yo xamante ni nek Saint-Louis mu ñëw waxtan ci waa citizen attitude ñoom ils sont partants ñu ñëw di liggéey ci ñom kon tay ji bu mu mëne résumer moy euh, comité de veille bi.

ok am na solo donc di fàttali rek euh, yéen ñi nga xam ne yéen ñi seetaan ñu ngi fi euh, tey seen euh, plateau bi nga xam ne di spécial Ramadan ànd seeg Gaz El Salvador comme ni nga ko waxee nii jiite communauté de veille et d'alerte ndax stop Covid 2019 bi waaye tamit di ànd si wet bi ki nga xam ne di Cheikh Baba donc damay daal di ñëw rek ci Cheikh Baba Ngom Gaz dèjà leer yi am na solo trop donc Cheikh. waaw mën noonu xam kuy Cheikh baaba de ah. waaw mën nga xam kuy Cheikh Baba kañ. Mhm. la rek. Eh, di doomu Cheikh Cuuna ak soxna Ndey Maram hmm. waaw doon jànkatu xasida waaw yaakaar naa loolu damay Cheikh Baaw waaw tey eh, bu ne jànkatu xasida day parfois dañ gis si cant yi parfois ngis la si jàng kuréel xasida yi comme ni nga ko waxee alors eh, depuis kañ nga dugg ci ci ci milieu milieu njàng bi ñun yaakaar naa dañoo judd rek fekk suñu ay waajur nekk si ñu judd ba xàmme rek commencé ànd ak ñoom ñu maanaam ñu nuy yóbbu ñuy ànd ak ñoom ñu ñu ñuy xamal bu baax a baax milieu bi waaw wax yàlla. waaw tax ma rek boo juddoo kër ngéwal moom ginnaaw bi nu jàngee école jàng alxuraan um, yëngu nañ ci sabar yi waaw bi nu yëngoo ci sabar yi après daal nekk mi waaw. waaw parfois ma daan naa dawal loxo bi moom macha allah loxo bi neex lool waaye nag suñu borom moom fu ne maanaam ku ne ak fi mu lay jaarale xëy na yooyu yëpp jaar naa si après maanaam dem wuti métier dem defi min dem def menuisier bi ma jógee menuisier dem def téer waaw après daal bi ma jógee fa daal la ma sëriñ Tuubaa moom daal di nangu moom <laughs> ni ma daal yow daal yii daal yii nga def yëpp da ngay yàq sa taar waaye daal fii mooy kii bi fii daal mooy sa place waaw ok tey boo bëggoon na bu nu bu nu waxoon pour nga ñëwoon tuuti ci euh, parcours Cheikh Baba Ngom depuis ba nga duggee ci affaire bi ba fi nga toll nii tey boo doon wax ci parcours yi nga def yëpp ana na nga ñu koy détaillé. waaw parcours yi nag xam nga boo nekkee ndaw rek nekk si sa ginnaaw waajur parcours yi du bëre ndax lépp rek da ngay topp seen ginnaaw ñoom ñoo lay daan jaaral fii ak jaaral fii waaye nag du ñàkk ñàkk parfois nga am foo jaar am yu métti yoo daj waaw def naa. cassette def naa single waaw jàng ci ay xasida def naa boo xam ni ay tabla laa ci àndal affaire yi daal di mais daal parcours gi daal ñu ñoo ngi ci daal waaw ñu ngi ci parcours bi nii ndax dañ toll ci jàng sa biir wax sa biir wax li dégg naa nga dégg naa nga tudd euh, teewul ñoo ngi jaar fu metti tey sa jaar jaar yooyu noonu bu amoon benn métit bi nga xam tey moo nga ni fàttali ci sa jaar jaar ban lay doon waa xam nga métit du ñàkk waaye métit moom boo ko defee métit rek lay doon métit waaye boo ko deful métit du ma sa doon métit ndax lépp loo gis ci àdduna rek ay jaar-jaar la da ngay dugg fii dugg si roq bi mais du si ñàkk daal mu parce que moo ak bi ñoo bokk ak bu nit mën def métier ba mënti def rek du ñàkk daa si jànkoonteeg ay métti métti yoo xam ne waaye boo ko defee sa xel rek ni métti métti la rek mu doon métti métti waaye yàlla dogal na ne bi ñuy yëngu ba léegi wax dëgg yàlla euh, dañ topp suñu ginnaaw bàyyi xëy maanaam xëy na moom sax mooy daj même métti métti yi ñu ñu topp si ginnaaw rek di di maanaam di si ànd ak moom <laughs> tey tey bu nee Cheikh Baba euh, soppe yi am na ay soppe am na ay am di jàmm tey pour nga bégalaat tuuti comme ni nga ko defee ci léeg ci commencement bi nga nga def loo xam ne bu ko defee ñu xaw a yëngu tuuti saal bi xaw a xaw xaw a xumb tuuti quoi ak suñu rappeur bi <laughs> tey rappeur plus doon am quoi. <laughs> مدح النبي المنتخى سعد إلا بيتي إلى الناس وعيب إلى حب النبي لله سورا سورا زاد إلى المدينة المنورة محمد صلى عليه وسلم مسلما بدت لنا الأولى محمد فرد يفوق تسنيا وفاق جمعها الولد يا مهنيا درجة المختار خب المرسل بيات الله درجات رسوله كل نبي لله زورا زاد إلى المدينة المنورة كل نبي ورسول يدعو خلف وسيلتي والمتبع أحمدنا الماء ما ما ساء ولسوى نذاق من ساء لأمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكنين جماله يبيف الدرايا ونجوى يوني عن الدراي جماله جماله يبيف الدرايا عن احترام مدلتنا الإيمان والإحسان وأحسن لسان الأمن الأمام يسر وقتي في كل زمان وغير من قمرة المستزنى لم يكن مرق ونبيلا روضتي وبيتي سادا وإلى heure bi daaw daan fekk ngeen di waaj li nga xam mooy festival salaam bi euh, ren euh, ak lii am ba tax na demu leen donc mu doon li nga xam tiis la bu wàcc si ñëpp dégg nga léegi léegi gaz mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy leeral. donc tey nga nekk koo xam ni bëri na ñoo xam tey ngi lay bégge di di la di la di la safoo saa su nekk tey boo doon am message boo xam ne nga leen ñoom ñoom na nga leen koy lancé ci li nga xam mooy jàngoro ji am tey ban message lay doon en fait waaw message bi nii lancé rek mooy comme ni ko waxee rek comme que maanaam maanaam tubayal tubayal lakkandoo moom dañuy déglu li nu si ñi di wax rek ñu topp seen ginnaaw ndax suñu kilifa yi li ñuy wax wax dëgg yàlla mooy sunu moom moo ni aar métti na loolu nag metti na si ñëpp ndax dëgg yàlla heure bi daan fekk ñu nekk ci yitte ñi nekk ci festival salam bi ñi nekk ci wàccaay badar gi ñi nekk ci maanaam seen ay yitte ak seen ak ay seen ay activité wax dëgg yàlla loolu lépp tey dem na ba kenn génnatu sa kër dañuy sant rek te toog xaar xëy suñu borom heure bu ko rek tawat bi dana abal incha allah yàlla baax na donc gaz dañuy ñëwaat ci yow rek euh, gis nañ aussi tamit cas importé yi mi ngi dugg cas importé yaa ngi dugg gis nañ fan ya nga def ben live bu am solo donc euh, nan nga gisee cas importé yooyu nga xam ni saa su nekk euh, communication bi ngi daw rester chez vous te teewul ba léegi gars yi ñu ngi fa ñu ngi génn di dem donc nan nga gisee tey euh, phénomène boobu. bon phénomène cas importé yi man li mu ci gis mooy ñu fermé totalement li nga xamante ni moom mooy frontière yi sànq tëjuñu ko carrément cas yi day continuer di am amul ay kii autorité la kudul dul santé wartul la may. foofu dama lay dama lay tuuti parce que même boko ko amna ñi nga xam ni nga ngi jaar si yoonu suuf yi. moom lay wax c'est-à-dire cas yi nga xam tane ne dafa war danaan jógee bitim réew di ñëw yooyu déjà amatul amatul kenn kuy jóge ci dëkk di ñew ci dëkk kon la moo fi des mooy jóge ci région ñëw ci région légui nak autorité yi nga xam tane ñom ñoo nek ci région yi ak directeur yi ñooñu euh, depuis défiance bi mu amee Thiès ba légui ministère foofu nga mëne amé autorisation pour sortir pour génn mais ñu gis ni ba tay am na si service yooyu dem nit ñi ñi ngi dem di ñëw commerçant yi ñi ngi dem di ñëw mareyeurs yi ñi ngi dem di ñëw kon tey yii nii phénomène boobu sànq bloqué wuñ ko benn boo xam ne ni liggéeyoo ci santé amoo droit tegu ci kaw ko cas communautaire jël ay marchandises ñu ngi ñu ngi génn di dem de ñu moom moo indi ci kaaw lu est-ce amul tamit ay dil am suuf mais bien sûr. ah mais doy na waar doy na waar. mais ñun ñëpp gisandoo euh, oto oto oto oto ambulance bi doon yëpp ay nit. Ah, di leen di leen di leen fayeku ñëpp xam nañ trafic boobu. tey pare dégg naa après da nga ko démenti ñu noonu. non mais ah, trafic boobu ñëpp si teg seen bët ñëpp gis nañ que ni am na avant sax ñoom ñu koy filmer di ko wane ñëpp xam nañ ni am na. gars yi ñu ngi déplacé wu région par région di yóbbu nit ñi si ay tax tey jii nii cas communautaire bi ñu am Saint-Louis démb. Mm-hmm. mareyeur bi. Mm-hmm. mais trafic yi ñoom xam nañ ko ñoom bu ñuy ñëw. bu ñu ñëw dañuy indaale nit fayeeku ko indaale nit bu ñuy dem. fayeeku wa mais nit ñi tey boo gisee boo xamee woon boo xamee benn marieur nga nekk foo jëm ndar da moom day bàyyi euh, kiiwam comment dirais-je ki muy daan àndal danaan ko toogal encaissé xaalis ñëw indi la buy delluwaat tamit encaissé xaalis yóbbuwaat keneen c'est que nit ñi ñoo mënul toog te nit ñi sànq tooguñu cas coronavirus bi day gën a yokk cas communautaire yi day gën a yokk te communautaire moom fu mu am yeneen 100 ñu ngi fay nelaw. mais léegi mais léegi mais léegi ban ban matuwaay lañ matukaay bi mu war a jël mooy def confinement total. mais ñu ngi si mille cent et quelque ngeen teel na. confinement total kenn du génn mais ak ak ak. non mais non non mais mais gaz attends tey boo xoolee Sénégal fu mu toll. nekkuñu pays dëkk maanaam dëkk boo xam ne am nañu doole am doole boo xam ne bëgg tëj doomu aadama yi. non cest tëj doomu aadama bi dafa am lu mu koy tëjee tëj du da ñëw rek tëj. tey bu ñuy tëj nañu tëj par ay quartier tey jii nii tubaab bi bu ñu ci bëggee génn du boo nekkee lew na may ñu la nga dem jàmm gën boo nekkee jàmm gën may ñu la nga dem Balakoos. boo amee soxla boo amee soxla doo dem. ñu nekk si quartier bi ñooy circuler léegi bu ko defee danañ mën maîtriser yenn cas yi tey ji bu benn cas amee law. yow nga am nga nga dëkk par exemple nga dëkk par exemple euh, nga dëkk par exemple fi nga xam ne mooy mooy mooy mooy lew na nga war dem jàmm gën pour def benn liggéey léegi dooy def yow. mais dañ nekk si cas exceptionnel. nga war a am nga war a am information boo jëlee foofu looy def. nga dañ nekk si cas exceptionnel. ñu transmettre mais téléphone yi ñu ngi fii ah, lan la téléphone mënul amul lu téléphone mënul amul tey jii nii déplacement yi yaakaar naa ni tey quartier boo dem. quartier boo dem tey bu nu mayee à benn heure bi ay oto yu ñëw di dugg si di jaay dugg ak jën. pour ñu paree ñu génnaat keneen amul droit déplacé wu dem quartier par quartier ba li nga xam te ne moom mooy cas communautaire yi.

j'espère que lundi dina dugg ci gouverneur bi danañ ko ci biir pétition bi dinañ ko wax li ñu naqari yépp ak ak défiance yi nga xam te ni am na ci mesure yi nga xam ni ministère bi décrété na bu ñu paree ci pétition bi ñun danañ jéem a toogaat waxtaanaat suñu biir yan jumtukaay la ñuy mën a mettre en œuvre avec le monsieur le maire ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu doxal ko parce que bëgg nañ tey entrée Saint-Louis am ay thermomètre képp kuy dugg Saint-Louis boo taxawee ba ba ci juuti bi nous nous une température ba am température élevée ou pas bu fekkee ko ñu même si duggee day am comme de suivi boo xam dans ni bu ko defee tey jii nii ñu recevoir ndar zéro cas Covid 19 bi. j'espère que nga xam ne nekk ci wàllum boobu j'espère que tamit euh, yéen a ngi yéen a ngi jël ay matuwaay baax a baax balaa ngeen dem di veillé ji di indilaat aussi tamit li nga xam mooy feebar bi je pense côté boobu moom yéen a ci yéen a ci bàyyi xel bu baax a baax c'est important. <laughs> ndax am ngeen matuwaay yu doy yu tax lu war a tax ngeen mën a di veillé ah di dem di ñëwaat.

noonu la demee quoi xam nga xasaayit moom bu ngay dégg à chaque fois rek <laughs> suñu yaram dafay tàng. ndax bi mais <laughs> maa ngi koy jaajëfal. ok gaz ñoo ngi koy jaajëfal koo xam ne tamit euh, ku ku ku ku ku ku ku responsable la ku engagé wu parce que gis nañu ba amee ba léegi day yow suba teel nekk ci direct yi parfois yi ñu ne mooy saay saay mi ngi direct rek li muy wax noonu donc muy chaque instant mi ngi mi ngi xool li nga xam ne mooy tax affaire bi mën a mën a mën a yem fii mu koy doxal donc gaz ñoo ngi lay encouragé baax baax équipe bi nga xam mooy Sahel TV da nga nekk ñoom liggéey ñoom ñu lay encouragé baax baax delloo xam ne aussi sa ginnaaw boo soxlaa équipe bi daanu ñëw ànd li nga bëgg ñu daal di koy xeexandoo pour mun fi jógee ñu ngi la a baax Chababa donc temps bi daf ñu xoj tey euh, suñu doon ñëw tuuti rek maanaam si sa ay projet yan mooy yan mooy yan projet nga teg ci feeg ci kanam tuuti waaw fi ñu toll nii nag projet yi moom dafa daa ngande loola waaw xam naa bu nu jógee si lii ci coronavirus bi incha allah bëri na ay projet yu ñu teg mm-hmm. kenn dama yaakaar ne sax est ce que bu corona bi jeexee du ma toj dëkk bi <laughs> ndax suñ toll nii sama yaram dafa tàng jëpp <laughs> sama yaram daal tàng na jër daal te am na yu ma denc incha allah pour xarit yeeg soppe yi ak ak am ni jàmb yi ak suñu papa yeeg suñu yaay yeeg suñu maam yi ñu gis nañ aussi tamit si si li ngay yëngu am na ñoo xam ne comme yow ñu ngi defar ay vidéo di sensibiliser gars yi ñu ngi génn ay single est ce que yow tamit am loo xam ne yaa ngi ko siy def parfois tamit waaw incha allah ñooyu yëpp ñu maanaam ñu ngi si ñu ñoo siy liggéey tamit te mi ngi suñu xel incha allah waaw incha allah daal bu yi passé daal daan fi génn ay kasetu xasida incha allah yoo xam ne jox ko suñu mag yi waaw daanu génn tamit xiin yeeg bagage yeeg yëpp daal di daal daal di bëggal xar yi maanaam maanaam xale yi <laughs> incha allah waaw boo amoon tey ñoo xam ne ngi ni gërëm di leen sant de passage mu ngi maa ngi char suñu papa suñu xarit Cheikh Cuna Ngom Naar Fall donc tey boo fekkoon am na ñoo xam ne ngi leen ni bégee di leen di leen di leen di leen di leen jox benn message bu fort ci émission bi ñan lay doon waaw maa ngi siyaar sama papa maa ngi koy ñaanal Alaaji Cheikh Thioune mu yàgg bi loolu te wér di ñaanal sama yaay foofee mu tëdd yàlla na suñu borom yokk ay leeram di siyaar suñu waa kër waaw waa kër ga rek ma lay bëggee ñoom Assane Mbaye ñoom Mass Mbaye ñoom ah, Assane Mbaye ñoom Mass Niang soxna Ndeye Maguette sëñ Cheikh waaw ah, Cheikh ñoom Binda ñoom ñi ngi siyaar ñëpp ñoom Omar ak ñoom es bàyyi ma kenn ñoom Adja Mbaye ah waaw kooku moom sama mag la ñoom Fadiagne maa leen di siyaar bah, baax waaw bàyyi ma kenn sa ak sama yaay Mintu ma ngi koy ñaanal borom ak suñu kanam sama tonton Cheikh moom it yàlla bàyyi la suñu kanam suñu nijaay yëpp daal ñoom Mouhamed Lamine Papa Niang Cheikh Ndiaye Baba bàyyiwuñu kenn macha allah ndax man moom ku ma xam-xam ni samay mbokk rek ak sama papa Bas maa ngi koy ñaanal moom it suñu borom bàyyi ak suñu kanam waaw ya, ak suñu yaay um ak rek kenn waaw su am solo trop amna solo trop vraiment kontaan nañu trop je pense que légui li ñu rek moy nga waaj nga waaj ben zikkër bu am doole bo xamni xam nga mo xam si mam Charain Fall mo xam si ku mu doon bu ko defé gaay fi Baye Fall mu ne a yëngu ñi daal di ko tëjee donc ñi euh, ñi ngi ñi ngi santaan ñëpp ah ñi ngi santaan ñëpp di gërëm ñepp di di rafetlu aussi tamit liggéey bi di gërëm bu baax a baax euh, Nobis euh, moom mi nga xam mooy producteur Sen TV chargé lépp li nga xam mooy wàllum technique ñu ngi koy char bu baax a baax ak sama ndaanaan sama adjoint bi nekk sama ginnaaw saa su nekk Mandiaye Mandiaye Fall donc ñoo ngi lay béggee di la char bu baax gis nañ taxawaay bi am na solo trop donc euh, di leen wax rek euh, plateau bi daan koy amal saa su nekk mu ñu leen wax ñu nag chaque chaque semaine lay am wala chaque jour mais saa su nekk daal bëgg nañ koy amal ci weeru koor bi saa yu ko mënee rek di ko defee nii di ko mën a béggale ñi nga xam ne yéen a toog seen kër seetaan saa su nekk tey nag damay euh, may émission bi spéciale ki nga xam moo di Mouhamed Niass di koo ne ku ku jàmbaara la ku gëm boppam ku nangu liggéey ak équipe bi mu ñoom laxaar ñoom ñëpp moom mi nga xam mooy directeur waaw defe naa loolu la Mouhamed Niass ñu ngi lay béggee di la char bu baax donc di béggee ñëpp ñu nga xam ne moo ma solo lii di aas moom moo jaar fii maa ngi koy char bu baax a baax bu ko defee suñu Cheikh dañuy daal ñëw nga daal yëngal tuuti saal bi ci wàllum Baye Fall ndax bu ko defee gaz xëy na mu daal di génn àddiyee su ndogu li comme temps yi moom mi ngi si communauté bu am doole bi dinaa budget bi génn waa Cheikh ñun tamit foog nu wax ku sonal de ah? foo ñox ki nu sonal ah. waaw muy Pa Modou ah. waaw jazz ah. laa <laughs> ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah làmp maam Seynabu Njaay maam Serafal laa ilaaha illallaah laa ilaaha salawooy suru maam sey njaayi maam serafaan boo guddee jaam ñi fëndem la sukkaabe ngoone jeey damel dee ca law damel sàmme maam serafaan Seex Ibra Faal boo guddee jaam ñi fëndem laa ilaaha illallaah faa laa ilaaha illallaah Seex Ibra Faal daa bay maam Seynabu Njaay suru maam Seynabu Njaay yaakaaru Seex Abdurahmaan Faal laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah maam serafan laa ilaaha illallaah Cherifo Faal Aydara naru maam Seex Ibra Faal laa ilaaha illallaah jaajëfati ñu ngi leen sant baax di leen gërëm bu ko defee di leen jox yeneen numéro incha allah yaa ngeen jëfati salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë jëf